mu ne moom bi mu tolloo ci ñaar fukki at ak ñeent ak juróom mu ne boobu la ko suñu borom xiir ci lu baax mu ne la ko jiitu woon boobu mu boobu jamono ji mi ngi toll ci bëgg sa réew mu ne bëgg sa réew lañ daan wax mu ne muy ndaw mu ne bokk ci ñi bëgg ñi njëkk bëgg réewam mu ne dox ci ay jéego waaye ci gës kaw gëstu boobu mu doon mu ne ci biir gëstu boobu mu doon gëstu. di gën a gëstu dëgg. mu ne di di gën a gëstu dëgg. di gën gëstu lu baax. di gën a gëstu lu baax. di gën a gëstu suñu borom. mu ne di gën a gëstu suñu borom. di gën a gëstu Sëriñ Tuubaa. di gën a gëstu sama diineem. gën a gëstu diineem. loolu nag moo tax mu jéggi foofu. mu ne loolu moo tax mu jéggi foofu. mu ne loolu moo ko njëkk a song bëgg réew moo ko njëkk a song mu ne yitte jooju moo ko jëlee foofu ba mu mel ni moom talatul dara mu ne lépp lu dul digganteem ak Serigne Touba ak diggam ak boromam mu ne loolu mooy li ko ëpp doole mu ne waaye mi ngi sant yàlla bu baax mu ne teew ko ànd ak sagoom mu ne teew koo xam warteefam mu ne kon la cay warteefam ci dunduk àdduna gi ak dunduk àllaaxira lu ci ne lépp lu mu ci man dana ci def kéemtalaay kàttam